ñun duñ ko baay mu jàll parce que mënuñ nekk ay élèves maîtres ñu ñuy former am égalité yeneen école yi nga xam ne ñun ñoo bokk même ministère ñooñu di fayeeku di inscrire vingt cinq mille francs ñun ñuy inscrire quarante trois mille daaw ren ñu bëgg a yokk. yile étudiant di nakarlu itam yéexaay bi ñu nemmeeku rek ci seen fayooru bourse. tant que ñu taxawal suñu bopp taxawal suñu bopp si laan mooy li nga xam ne mooy problème école bi. depuis daaw ba ren problème yi fi nekk ñu koy négocier dafa bëri ren ñu ñëw am yenn problème yi nga xam ne yii moom dañoo ne ñett yii duñ ko bàyyi mu jàll. ñi bootu ci gouvernement scolaire bu NFEFS pare loolu fas yéene rek wéyal seenu plan d'action bañu ñu si sax ba jëfandikoo bépp pexe boo xamante ne rek yoon may na leen ko ngir ñu xeexee ko. may ni kon nag a Kanté mooy euh, njiital l'école ba directrice ba si boppam andi na ay euh, tontu nee na nag euh, élèves yi grève bi nga xam ne dañu ko door loole wax fa dëgg neex yàlla dara awu ci yoon ndax mbirum inscription ay kàddoom ñu teewlu ko moom Maimouna Kanté. te dans l'histoire de l'école kenn mësul gis ku inscrire wul dem grève xale yi inscrire wuñu seen xaalis nekkul ci école bi dañu réussir concours bi en novembre en septembre plutôt ñu jot la liste à la fin du mois de septembre au mois d' octobre ñu woo leen woo seen i parents ne leen nañ ñëw inscrire ñëw boobu ils ont fait état des conditions yu ñuy vivre et en bon parent en bon encadreur ñu ne leen dem leen classe dem leen classe deux jours après ñu ne dañuy grève donc loolu laa ne amul fenn lundi prochain bu soobee yàlla en tout cas première année bi nga xam dañ leen recruter te seen dërëm duggagul fii bu ñu ñëwul. ñaxtuk euh, élève maître yu école nationale de formation en économie familiale sociale la ñuy ñaawlu El Hadj nga ko yokkuteem frais d'inscription yi ba noppi seen bourse yi nga xam ne nee nañ euh, dañ koy yéex a jot. ba tax ñu grève grève moom li ko jaaxal mooy noo mën a demee grève teew inscrire ko bokk goo maanaam ci ñu am sañ-sañ laaj benn droit pose problème aussi xam nga itam loolu dafa xew a dafay xaw a doy waar foo itam ñu ñu respecté leen ñoom kilifa yi yor wàllu njàng parce que mënoo nekk directrice di xam nombre étudiants yi nga am nga am dix yu bindu am ñoo xam ne bindooguñu di dem grève ça pose problème. Mm-hmm. léegi nag boo ñëwee ba inscrire ba noppi. ba pare nga wala bal di nga mën a di nga mën a demander sa ay droit mais de fekk nga def sa devoir ba noppi. Ah quand loolu am na solo ñu waxtaanee kon nag euh, syndicat bu euh, directeur yu école privée de santé fii ci réewum Sénégal nee nañu nag ñu ngay ñaawlu nañuy euh, doxale tàggatu ki jëm ci wàllum sage-femme ak infirmier d'État ñoom nag dañoo gis ne seen ab jëwriñ ci boppam na muy doxalee examen yi dafa am violation bu nga xam ne am na ca ci disposition législative réglementaire yi la ñu bëgg sax ñoom waa syndicat bi moo di ñu daal di appliquer système LMD kër Gueye moo yor wàllum revendication si SIDEPS ay kàddoom ñu doon mille six cent quarante et un candidats ñu ne soixante deux ñu admissible donc ñi si des muy sept cent quatre vingt ñu ne ñooñu ñoom bokkutuñu sages-femmes yi ñoom ñu nekkoon deux mille deux cent soixante huit candidates loolu quarante moo si jàll. loolu métti nañu fa fa metti yem daal. la diplôme d'état dañ ko war a wax Sénégal. dëpp ñaareel bi école clando yi fi nekk. président de la république événement Tivaouane yi. mu ne dañuy def audit bi école yi. audit boobu lan moo ko téye ba léegi nañ ko def ñun moom la ñu certification bi dañ koy bon parce que bu mu nee diplôme amatul li nga arrêté diplôme mooy certification mënatuñ ko def parce que licence ku ko wax rek ne supérieur enseignement ku ko tudd structure bi njëkk mooy la université mën nañoo boole université Sénégal yëpp ne da ngeen def certification nationale loolu dafa impossible aca ñu dexantu ba sa Linguère ñi ñuy woowee adjoint maire seen bëgg-bëgg moo di weeru jot ñu am naka lu ñu leen sompal maanaam indemnité la ñu bëgg nag ndax nekk adjoint au maire ba tey maire nga nee na ñoog fu maire yi ñoom ci boppam war nañu fa ay ay ndàmpaay loolu sabab ñoom adjoint maire yi amal ab ndaje tabb kenn ngir nag mu mën a taxaw ba ñu mën a ameliore seen statut coordonnateur ba El Hadji Yoro Ka ñu teewlu ko ak nag Mass Ndiaye eh, euh, suñu yónnante nag tey euh, li taxoon ñu daje Linguère mooy taxawal benn kuréel nu ñu naan bureau taxawal nañ bureau bi taxawal benn comité de pilotage pour que mu ŋànkale liggéey département bi ak yeneen département Sénégal pour ñi nga xam ne ñoom la ñu toppatal si maire yi et si loolu nag euh, suñuy suñuy suñuy suñuy ax yi ñuy yi ñuy yi ñuy tey di ñaa euh, di di won kilifa yi ngir ñu jàppale ñu si mooy lu ñuy naan statut adjoint au maire la ñu bëgg ñu président de la république dimbale ñu xoolaatal ñu ko beneen affaire mooy euh, ndàmpaay bi ñuy jox adjoint au maire euh, dafa xaw dafa xaw a néew. El Hadj mu ngoog ñoom ad adjoint au maire lañu nee nañ fu maire bi laalee salaire war nañ fa laaj salaire te li ñu leen di jox ne ab ndàmpaay néew na lool moo tax nag ñu wootee ab kuréel ngir nañu défendre seen statut. <laughs> bon sañ nañu ko ay sénégalais lañ. Mm-hmm. <laughs> même duma ko approuvé ci sama xalaat. parce que gis nga ñuy administré. moo xam maire moo xam ñu topp ci maire nañuy génneeku ñi ñu jiite di askan ci seen bopp fu nekk ñoom ñu wax ñëpp seen avantage personnel dong la ñuy waxee seen njëriñal bopp rek la ñuy wax waaye ñi leen fal nag waaye ñi ñu jiite nag nga xam ne am na ci koo xam ne taabalam 2000 francs ci nekk te su bëgg xëyee dagg impôt juuti mm-hmm. ñoom nag léegi lu ñuy am comme bénéfice bu ñuy laaj salaire ci kan lañu koy laaj nguur gi lañu koy laaj ci kan lañu koy exiger est-ce que tu vois média lañ koy jaar bu fekkoon too ni euh, jël nañ ko au est-ce que duñu ko jaar ci beneen yoon administrative awalee ko ci seen ministre bi nga xam moo yor collectivité territoriale mm-hmm. mais Sénégal mënuñu koo pàccoo quand même mm-hmm. kenn ku nekk bépp service boo rendre ce peuple di ci xaar ak paymant mais mm. ana ana ana ana adjoint au maire di exiger ñu fay ko salaire dafay dafay mujj poser problème ci moment boobu nga wóor na la ñii di wax nii ñoom non mais fàtte nañu ñi ñu jiite. ñi ñu mhm. jiite ñi nga xam ñu ngi tawata duñu faju ñu ñu jiite ñi nga xam ni ñu ngi ñu ngi am problème mu problème mu lekk comme ni mu jaadoo ñu ñu jiite ñi nga xam ne bu fekkee ci côté kaw gi la ñu ngi bay ba noppi amuñu fu ñu jëmee seen seen mbay mënuñu koo jaay mënuñu ko transformer euh, ñi ñi naan ñi ñi naan kaay leen falu juróomi at nañuy bàyyi xel ci ñi leen di wax kaay leen falu mhm. ñu am xalaat ak vision génn seen xel ci suuf ak avantage personnel mhm. nañ ci bàyyi xel bu baax ñu doxantu ba sa Ross Béthio ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbéyum ceeb riz de la vallée ak delta du fleuve Sénégal ñoom ci boppam dañu am assemblée générale la ñu woote woon la ñuy ñaawlu moo doxalinu comité de pilotage bi nga xam ne moom la ñu taxawal bu dikk tilal ñoom na dañu bëgg ñu tas commité de pilotage boobee daal di nag taxawal benn collective bu nga xam ne dina ñaawlu manquement yi nga xam ne nemmeeku nañu ko si ña jiite euh, li nga xam ne moo di communité bi ak seen collaboration ak waa SAED ñu ànd seex euh, Babacar Niang sa Ross Béthio Ross Béthio nekk ci delta bi ak vallée du fleuve Sénégal foofu nag baykatu ceeb yi ñoom wax nañu ñoom li ñu bëgg mooy ñu tas comité grande digue tëlal bi nga xam ni moo leen jiite woon na ndax liggéey bi teguwul ci yoon ba grande dafa am comité bu ko jiite muy comité grande digue tëlal nekk fi lu ëpp fukki at ak ñaar ñoo am ay jafe-jafe ay boru courant ba mënuñu dem campagne ngeen xam ni liggéey sérieux kon bu liggéey sérieux wul da ngay xam ni mënatoo dem ngeen ñëw taxaw ñu fexe ni ñu defaree li ñu bokk waaw mais nag da ni du ma du ma dem te keneen du dem mënul nekk. mbaykatu ceeb yooyu nga xam ni sax tëral nañu ab collectif di fësal ay njubadi yu bëree jóge ci structure boobu moo xam ci machine yi ñuy liggéeyee wala wala ci koppar yi nga xam ni moom lañ jëfandikoo rawatina taxawaay parparloo bi nga xam ni SAED am na ko ca boor boobu. ñu ni leen tënku leen si réglement intérieur u Grande moom moo defoon ngeen falu si deux mille quatre cent hectares muy quatre vingt seize délégués kooku kenn mënu ko wàcc li ñuy xaar si kilifa sa sayet ñu dox yoon def dëgg taxaw parloo bi dafa doy demandons l'audit du comité de grande Téléel mu nekk ab situation boo xam ne nag baykatu ceeb yi nekk ci Ross Béthio taxaw nañu teme pour indi ci ay coppite ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu relever kuréel googu nu mu gën a gaawee jamono jooju di jàppale ne kon directeur général bu Sonacos door na ab tournée nationale sa diwaanu Louga euh, capitale bu Njàmbur foofee Modou Diagne Fada jot na fa yëkkati kàddu nee na 37 euh, milliards ci 72 yi nga xam ne moom la ñu rek euh, natt ngir na mën a jënd production arachidière bi loolee yëpp daanaka yemb na. Euh, dikkaat na ci yeneen ci ay révélation jëm ci société nationale bu commercialisation des oléagineux Sonacos euh, ba noppi it euh, nee na dépassé na largement stock bi nga xam ne jot na ko jënd tollu ci cent trente mille tonnes ci wàllum gerte ñu ànd a seex gàllay silla ci ay leeral donte njëg gi ñuy jënd kilo gerte gi ba léegi xamaguñu ko directeur Sonacos baa ngi dalal xelu baykat yi loolu tam vraiment baykat yépp war nañ ko xam du Sonacos mooy fixer prix gerte Sonacos dañ naan prix bi lii la mu jënde loolu bu ñu ne prix bi lii la nag moom sañ naa jënd lu ko ëpp mais sañ te jënd lu ko manqué camion bu ñëw rek dañ la jënd parce que xaalis bi moom doy na te teel na accès ndax euh, xañ na li ñu signé ci kaw accès gul mu ngi ci yoon bi waaye ñun def nañ suñu pexe ba nga xam ne usine Louga bi ñuy wax fan jamono ñuy wax ak yéen daañu jot 500 euh, millions de francs CFA ne mu ngi fi donc bu ñu woon ëpp suba fay opérateurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi indi seen seen gerte 130 yi ñu amoon daaw nag Nour Diagne Fada ne ren fas nañ ko yéenee romb 40 millions la ñu amoon ci banque islamique ren am nañu nañ ko ci ñoom ak li nga xam ne banque locale yi war nañu koo jox lu mu gàtt gàtt dina mat ñaar fukki milliards donc mu nekk juróom-ñaar fukki milliards ak ñaar usine Sonacos bii ci Louga nag coono yi muy teg askan wi tax na waa koñ bi dëkk ci ñaxtu dañuy dégg ñaxtu yi ñaxtu yi mais euh, li may wax directeur bi rek mooy waxtaan nay waxtaan ak population ndax nit boo koy teg ay tort ay emploi ñu dugal leen ci euh, suñu feebaree ñu faj leen ci suñu centre euh, médical bi lépp lu nga xam ne dañ cey yëngatu ci koñ bi euh, Sonacos dugal ci loxo ci visite bi mu doore ci seen béréb bi ci Louga te ñu war fee door sax ren di segal diwlin raffiné bii directeur Sonacos bi xamle na ni xottu gerte yi daan fàtte nit ñi léegi dootuñu ko gisati ndax fi mu ne cimenterie yee koy xëccoo mu ngoog Elhadj dañ doon wax fan yii ne kon Sonacos dafa nekkoon ci ay jafe-jafe waaye bu ñu sukkandikoo ci tournée bi mu euh, sumb moom euh, Modou Diagne Fada mi nga xam ne ne kon liggéey bi mu ngaaw ci yoon. waaw bu fekkee ni mu ko annoncé noonu la demee. Mm-hmm. muy waaj pour dox ni jamonoy doxee. muy d' abord ci discours am dafa jëkk tenir compte situation liggéeykat ya fa nekk. Euh, ci wàllu gerte gi aussi di ségal diwlin boo musaan bu Sonacos bi nekk Louga man jaar naa fa yàggul loolu fekk ma doon dem ñoom rek sa sax dafay jeex. <coughs> mais bu ñu bu ñu ko reprendre ba activité yi commencé waat liggéey liggéeykat ñu mettre leen dans de très bonnes conditions def euh, achat bu am solo ci wàllu gerte non seulement diw gi dana am solo ci Sénégal mais dina dina tax ñu wax li ñuy wax transformation ñu mën ci def yeneen xeetu produit def ay chocolat def yeneen ak yeneen yeneen xottu gerte yi la même chose waxuma la sax waxuma la usine ciment yi koy jëkkante sax mais loolu benn côté la mais beneen côté bi itam xottu gerte mën nañ ko jëfandikoo ci loolu dafa am benn collaboration diggante ministère bi yor lu jëm ci wàllu industrie ak moom directeur bu Sonacos xottu gerte léegi kenn dut ko lakk. Mhm. li ko ci ay usine seen four yi ak xottu gerte dañ koy boole ci aliment de bétail. dafa am mhm. solo donc dañ ci xalaat même même même feu de brousse nekk nekk ci àll bi tey feu de brousse war takk ci Sénégal parce que ñax kenn sànniti ko. Mhm. am na composition chinois dañ ci dañ ci évoluer ba nga xamante ni bii def ay petite unité de production yoo xam ni ñax mi la ñuy booleeg xottu gerte yi am tuuti euh, xeetu aliments yi ñu ciy def. di ci génn ràkkal yoo xamante ni bi mais dina gën a yombal éleveurs yi wàllu aliment de bétail te xam nga aliment de bétail tey dafa nekk problème ci Sénégal donc nag ñu ngi xaar comme ni ñu ko waxee est-ce que noonu lay demee sur le terrain attendons pour xool fi ak euh, traite ubbi maanaam li ñuy wax bari ko taxaw ñu commencé jënd gerte parce que bul fàtte ni nag annoncé gu ñu njëgu gerte gi parce que béykat yi du ñu ko jaay deux cent cinquante bi ñu ko jaay woon daaw alors daaw bi ñu annoncé sax sax deux cent cinquante dafa am ay OPS yoo xam ni au lieu ñu def li njiitu réew mi wax mais dañu taxaw di xeex baykat yi ni baykat bi méritowul jaayi kilo gerte deux cent cinquante ñu bàyyi leen seen gerte am ñoo xam ne dañ ko mujj dem di ko jaayi mbàpp cent soixante quinze mu nekk lu grave loo xam ne ñu ngi ciy interpellé euh, gouvernement bi surtout du Diagne Fada ne ci veille bu baax OPS yi képp koo xam ni defoo lu gouvernement bi wax am nga possibilité leb ci banque yi wala dem jëndi gerte jëndoo gerte di xeex baykat yi nañu nangu sa licence wala sa agrément ndax mérito woo euh, dox diggante gouvernement bi ak baykat yi parce que li am daaw ren kenn du ko nangu moo tax bi ñu bëggee def ay manifestation OPS fii laa leen taxaw ni leen kenn du leen dimbali kenn du leen jàppale mhm. parce que yéen xeex baykat yi kilo kilo gerte ren ak gerte ni mu ñàkk ñi am nji mu ndaw yépp defuñu récolte bu baax pratiquement mais kilo gerte warut a yées 400 francs war na war na sax mën a yegg 500 boo xoolee léegi importance su gerte euh, ci Sénégal amatul dara luñ ciy sànni maam. mu ngoog ñu waxtaanee campagne d' information éducation communication waaye nag nees mën a def ba wàññi euh, mbalit meex yenn salte yi ñu tuut yenn bërëb yi en tout cas projet la bu nga xam ne ni des na door euh, sa Hann Bel-Air ak Dalifort projet boobee ñu ngi ko tënk ci gestion de la santé environnementale et pollution en Afrique de l'Ouest colonel Alassane Ngom coordonnateur projet bàyyi colonel Alassane Ngom coordonnateur bu projet ba la ñuy teewlu ay kàddoom bu fekk. ay barab yoo xam ne nii dañu koy tabax pour di fa dajale mbalit mi yoo xam ne mbalit mi du doon foo di jant xam ne dina tax aussi nit ñi duñu xaarati oto bi ku am mbalit da ngay dem def ko foofu oto bi bu ñëwee jaar foofu mooy les points de regroupement normalisé am nañ aussi mébét pour euh, def des opérations de nettoyage maanaam mbalit mi nga xam ne ni mi ngi na fi yëpp ñu jëlu ko mais aussi bëgg nañu xool si bu dee fii la ci Dalifort mooy lakk bi nga xamante ne nii euh, daf ndox la te ndox mi boo xoolee ba ci biir euh, day am nit ñi dañ ci sotti ay salte am na ay ay ñax yu ci sax te jàpp nañ ne foofu buñ ko defaree mun na tax ba euh, yokk vraiment wér-gu-yaram bi fexe aussi ba nit ñi am fu ñuy fexlu Euh, fexe aussi ba foofu daal parce que ndox moom fu mu nekk boo ko saytuwul rek boo moytuwul mu jël musiba. waaye ca ma ngoog 8h25 El Hadj ñu bàyyi la ñu dem tës. waaye mais ñaanaloo Sadio Mané nag mu wér. non Sadio day wér sax. incha allah day day day dem day dem mondial bu soobee yàlla. Euh, yàlla defal jàmm. amiin yàlla bu pexem noon am ci moom kaw euh, am ci kawam do benn doole. amiin amiin yàlla bu pexem kat am ci moom doole. yàlla bu ko dogal lompoñal. yàlla bu ko dogal tënk. moom daal na doxal na doxal rek. na doxal rek loolu la ñuy xaar ci moom daal Sadio na doxal. yàlla baax na waaw bu ko pont jam bu ko mhm. paaka laal lañ set aram. na la Sadio bu ko pont jam bu ko paaka laal bu ko lañ set jigéen. léemu yàlla dem ci ñoom yàlla nañu bégal macha allah. na la jàmm sonal. jaajëfee laaj si kanam tuuti tës 89.7 89.7 Zik FM ak équipe am Mantoulaye Thioub Ndoye